تسعوا أن تصيبوا قوما بجهالة القرآن كلا تفسير القرآن جنوب بندو من قال يستالف يبل ويدو بستفاسر أدمي مكب بندي yónnee ci Cheikh Sile min kenn Njaasaan mu ànd ak rakkam yu baaxee xaaj Mouhamed alaaji Cheikh Cheikh si Jaxee alaaji bu ñu ñëw sookoon teewee si eh, te teraanga yi téere bi ñu jaaw nuy rëy eh, ñun nag ñu ñëw ñu dëkkoon ak sëñ Amadou Dem 1943 la fa sama bàyyi sañ Ndiassane Saloum ci département Foundiougne mu wëlante moom lool am foofa ay taalu bi baan gee mu am fa eh, mbokkam mu ko tëdd mu ko ziyaara si ak mu nekk ñu ñëw sëñ ba yàlla dogal ma xamante Serigne Tidiane Deme bàyyi kii toog sama wet bokk googu ak kóllëre googu ñu di ko doxal loolee di dund suñu biir ba tabaarakallahu bu bis bi ñu jóge soo ko ñëw Njaasaan yëgal ma ko dox ma ci cër bu rëy ma ànd ak délégation bu bu rëy Lifsel mi ngi nii sama mooy sama taw Papa Abdourahmane mi ngi sama doomu mag la ak ñeneen ñi nga ñi ànd maa ñoom ak jàllu bi seex yi yëpp la àndal seex yi Dakar yi ak yu Tëngéej ak yu Thiès délégation force lañu def pour rek bis bi mu jaral na ko cër bi ma jox dama cee kontaan dafa rëy ci man maa ngi nuyu sëñ Abdou Aziz ko siyaare di ko ndokkeel ci at mu bes ni di ñaan yàlla defal ñu jàmm ci réew mi defal ñu ko ci at mi yàlla taxawul am na mayit Abdourahmane mi nga xam ne moo amee sama kàddu dana dana dana dana dana def xitaar waxtaan ak mbooloo mi ñu leen di nuyu sëriñ bi di leen ziyaara di leen ndokkeel ci bis bu mag bii ngeen defal seen way seen seen maam ak seen way fa tabarakallahu it bu mag ñi demee bàyyi fi su am ngeen pas-pas am ngeen xam-xam am ngeen ak njàmbaar bu fekkoon ni melu melu leen noonu bon bis bi du mel nii tey di leen gërëm leen ñaan yàlla bi na ci bi ngeen lool ko yi ak suñu